Heavy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 doon leen transféré ca fermam ba nekk ca Mbambilor ba juróom benn mala yooyu ñaar yi ñàkk ci seen bakkan mbir mi nag jur na coow lu rëy ci spécialiste parc nationaux yi ak ñi yëngu ci wàllum environnement ndax nee nañu animaux yooyu dañu leen a ci adduna bi yépp ak convention bu joge Amérique moo def lu ni mel obligé état yi ñu protéger animaux yooyu ndax ni ñuy rafee ci adduna ba fi mu ne nii sax seeni bëjën seeni der lépp luy jóge ci animaux yooyu di ay gazélorix dañuy tere ku leen di jaay yëf yi nag bi mu amee ñi yëngu ci wàllum aar jur gi mer nañu ba futtu ndax ñoom nee nañu seen dund yépp ci aar mala yi lañu ko def te mala yooyu ñuy tuddee gazélorix déplacé leen jële leen ci béréb yóbbu leen ci beneen béréb dañu koy tere nee nañu tamit jële mala yooyu yóbbu leen ci lieu privé moom ak acte braconnage ñoo moo tax fi mu ne ñu ngi interpellé njiitu réew mi mu yëy ci yàbbi ci acte bi nga xam ne Abdou Karim Sall def na ko ba ñaari mala yooyu mujj ñàkk seen bakkan moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona la wax réew mi nag bu nekkee quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans lañ tamit naan katu sàngara yi bari nañu fi ab rapport 2019 bu comité interprofessionnel du vin de champagne def nee nañu Sénégal bokk nañu ci pays Afrique yi dàq ak Dramé Sangara ëppatalaw ci atum 2019 fii ci réew mi ma ne nee nañu lu toll ci cinquante deux mille trois cent soixante quatre butéelu champagne naane nañu ko fii boo ko doon xayma ci xaalis mu toll ci six cent quarante deux millions cinq cent sept mille soixante francs CFA ëppatalaw tur Sénégal nag la ñu classé dix-septième pays bi ñu naa ne sangara ci Afrique laa wax ma ne ñoo jiitu Kenya ñoo jiitu tamit Zambie waaye nag Sénégal li ñu fi mën a naanee sàngara yëpp Nigéria Afrique du Sud Côte d'Ivoire RDC ak Maroc ñoo ñu jiitu mane ñoo nekk ca kanam laa wax rapport bi nee na pays yooyu ñoo ñu dàq naan sàngara Afrique na koom gi leen sàngara di yóbbul bari na 2019 sàngara si jóge ci yeneen continent yi di dugg ci Afrique toll na ci 3 milliards 693 mille 756 bouteilles ëpp tëllaw dur ma lépp gunduxe nañ ko fi laa wax milliards yi buteelu sàngara yooyu 2019 kot naane nañ ko fii ci Afrique mu yóbbu ci suñu koom lu toll ci 89 virgule 85 millions d'euros cey buñ ko investiroon ci mbay mi moo tax maa ne jàngoro ji dal Afrique moo gën a graw corona laa wax yëf yi nag mu ngi gën a compliqué ci ñaari garde corps Eumeu Sène yi te ñu defeere leen ci kanamu procureur gannaaw ba ñu njortee nii ñoo door kii Ibrahima Touré mi jiñ ne da doon sàcc oto Eumeu Sène ba mu jaare fa ñàkk bakkanam na di responsable vigile nekk ca Petit Mbao nee na ci kanamu enquêteur yi bi ñuy rond la ñu bett Ibrahima Touré mu toj porte arrière droite bu Range Rover bu Eumeu Sène gaare woon ci ginnaaw këram ca la altercation bi tàmbale ñaari lieutenant Eumeu Sène yi acharné wu ci kaw Ibrahima Touré tàmbali ko dóor bali xew mu jeex xew tamit ñaari lieutenant Eumeu Sène yooyu Sonko weddi nañu tuuma yi ba mu set wecc nee nañu bokkuñu woon ci ñu doon dóor Ibrahima Touré nee ñu kay waa koñ beegeen ñoom bi ñu yegsee lañu fekk ab ful tiim Ibrahima Touré ku ne di dóor nee nañu ñoom ñaar sax ci lañ doon jéem a calmer foule bi waaye furaas dal li xëddeen yëfi nag mujj na ci loxo yi yoon moo tax ma ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a graw corona la wax la xew ca société gardenance bii di Phoenix doy na waar ma ne sa wattuwul liggéeykat yi tabaski bii daañu jéeg ba duñu am xaru tabaski la wax fu naa def waay li tax nag mooy seen collègue bi ñuy wooyee du mbay waay waay waa ji warul woon sant Mbaye waay moo daw ak seen juróom-ñaari millions yu ñu ko joxoon ngir mu jënd ci ay xar pour liggéeykat ya ne waaye kii mën a tas yaakaar waay ak réew mi mitti mi Modou Mbaye dañ ko joxoon xaalis bi ngir mu dugg ci réew mi uti ay xar waaye nag booba léegi def na ayu bés kenn gisu ko kenn déggu ko sa waay nee na may ci àll bi ba ab plainte nag gaa yi mujj nañ ko déposé ca section recherche bu Colobane fi mu ne gaa yaa ngi ci tànkam Modou Mbaye moomu nag nee ñu yàgg na def lu lu ni mel ndax encaissé woon na fi ay millions wu jeunes ne da di yóbbu ca bitim réew ñu tukki moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona laa wax afal mi na li mu def rëy na ndax sawaay mi ab dentiste la dëkk ca Medina ne ñu ci biir kabineem la waa ji defoon réseau di fa trafiqué drogue ëpp tëllaw ca gël tàppe te xeetu drogue yi mu doon jaay du drogu njalaxaan cocaïne héroïne ma ne kii ñu ko toppee fil ba daanu laa wax police nag ñoo def lu ni mel gannaaw bi ñu defee perquisition ci béréb ba jàpp waa ji loxo ci poos fekk ko treize buletu cocaïne ak onze kepaawu héroïne li gën a ti doy waar nag mooy waa jii di aafaal bi ñu xoolee amul benn diplôme bu war a tax mu mën a nekk ab dentiste moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona laa wax assassin mi nag wuyoo na turam ndax waa ji at yi weesu polisu Parcelles Assainies jàppoon na ko ci wàllum faat bakkan ñu ate woon ko ba daan ko mu doon purger penam ca camp pénal bu Liberté 6 ci feetu korité bi yi weesu nag njiitu réew mi dafa gracier lu toll ci junni ak ñaar fukk ak benn détenu mu bokk ci moom assassin waaye nag li ñu naan jikkoog borom pax assassin delloowaat na buum ca mboy mboy ga ndax guddi ajuma jëm samedi ji weesu ci ay booru une heure du matin assassin rayat na nit ab xale bu góor buy wuyoo ci turu Matar Njaay dëkk ca asalem assassin ay ciseaux ko jam mu ñakk bakkanam ca ay mim réew sawaay bi mu defee yëf ba noppi nag nag daa bëggoon daw génn réew mi jaari Kaolack uti ca Gàmbi ba ñun ko mujjee tegee loxo ca boo maraîcher moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax réew mi nag fi mu ne saaga yaa ngi mel ni tulleeg màlli te li ci gën a graw saaga yu ñaaw yooyu ci ay gémmuñu kilifa lay génne moo tax ma ne nag réew bu demee ba ña war a defar ñooy yàq ña war a yar ñoo yari dikku réew moomu war nañ koo xoolaat mu dooneen seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz